na nabu ñu ngi yëkkati kaadum nuyoo ginnaaw bi ñu sante yàlla ba noppi julli ci sang ba tedd bi Seydina Muhammad di sant sunu sëriñ sunu wasila Mawlaana Alhaaj Muhammad Ndiéguène radiyallahu taala anhu yàlla na yàlla yokk ay leeram te taaf na ci barkeem kaddu gi dafa xaw a doy waar ci man ndax day ñaari kaddu ndax ñii kii ñoo bokk ndey ak baay sama rakk la ñii it samay rakk lanu samay jarbaat lanu samay doom lanu ñu nekk ci marché ngelaw sa papa imam As xale yi duñ koo bëgg te yàlla tax su xewlee dañuy àndandoo ñoom ñëpp dem délégation ñëw ca marché ba démb ñu jox kii leet abituun ñu ko joxal na ko imam As Baro yëgale nu ko sunu safar gi imaam ni ko waa baax na sànq mu yónnee ndaw woolu ma ma ñëw mu ne ma waa marché nga dana jox Abdou Mbaye leet pour mu indil ma ko ngir seen safar gi dama bëggoon nag nga ñëw demal ma ca dama bëggoon xale yi sant njégéen ma wut ci ñaar ba ñett ñu àndak ak yow gunga gunge leen ñu dem joxeel ma leert bi ba nu xam ni yëg naa leen waaye kër gi ni mu xate ak xew-xew yeeg yooyu na dem ma ne ko incha allah rabbi dinaa dem euh, bi ma ñëwee li ma wax mooy waa marché Ngelaw man duma seen sëriñ dan maa bëgg fi sabilillahi te yàlla rek a tax ñu bëgg ma ak diine gisu na ma it ca marché Ngelaw ba ma fay ñëw di leen seet waaye am nañ ci man cofeelu xol ba tax na lii ñu xew la ñu jël leetar yónnee ma te man dong duma kilifa diine ci dëkk bi indil ma leetar jox ma ko ni ma boole na la ci sa bis sunu bis bi loolu li ma gënal mooy ma dem ba teew fa tey xam nga li xew xalifa bi nekku fi jamono yëpp mi ngi tukki man naa fi nekk di dem ci xew-xew yi ak jàkka jeeg yi kenn xamul sama yaram tas na waaye bu dul woon damay sol sama dàll bu six ma dem ca tànt ba toog ñu may gis may jàkkaarloog ñoom ndax loolu mooy li ma doy ndax ku la yëg danga koy yëg waaye boo demee nga xamal leen ni leen ngant gi loolu rekk la li ma am mu néew mu bari nag def na ko ci enveloppe am teg ko ci sama loxo bi ma ñëwee teg naa ko ci loxol président ni ko imaam moo leen ko jox boole ko ak sant ak gërëm ak di leen xamal nag ni mbiri Serigne Touba moom loolu ngeen caa am bëgg na na ko ci sédd bu leen ko fàtte mukk lu mu lu ngeen ca am mu néew mu bari na ngeen ko ca sédd ndax bëgg na te it cofeel ku la bëgg lu ma am dina la ca boole mu ne ma boo demee nag moo xam loolu bi ma ñëwee jox leen leet jox leen loolu xale yi woo ma ni ma sunu mag dafay ñëw ajaa na bu njëgeen defal na ay teraanga yu rëy ndax fan yële ca ginnaaw ñëwoon na waxtaan ak ñun defal na ay teraanga bis bii bi nu ko ko waxee jël na ay teraangaam def ji ba tax nu ñimee mën a samp bis mën a woote bis kon dana koy sant gërëm ko ma ne leen waaw nabu daa def la mu war a def keroog bi maam Cheikh Ibrahima Fall ne alaaji Amadou Baro ku mu jiite ku mu jullee nga dem àjjana maam Cheikh Ibra daa ñëw daal di tëdd jaaxaan maam Amadou Baro ne ko ku faatu la wax mu ne ko déedéet sëñ Touba waxul ko faatu dañu koo jullee rek ginnaaw koo jullee na wax na te sama sang lu ma wax noonu la jullee ma daal di tëdd mu jullee ko loolu moo am diggante Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax keroog bi El Hadj Amadou Bara taxawalee jumaa ji di ko liggéey sëñ Modou Moustapha Fall. mi taaw maam Cheikh Ibrahima Fall dana ko Amadou Njëg alaaji mu ne ko waaw Njëgeen mu ne ko sama wóolare baay ak sa baay dama koo bëgg a li ma koy fësale mooy dama bëgg nga may ma ndigal suuf su nuy liggéey ci jumaa ji ma indi ko keroog wax nañ ni Baay Faal bi liñ la def di joxante paanu suuf yi ba mu àgg ci jumaa jumaa jooju suuf soosee lañu ko liggéeyale moo waral boo demee kër maam alaaji jumaa yi dafa xaw a def mbartal ndax suuf sa fa mu féetee woon moo xaw a gën a kawe fi fi amul woon suuf kon loolu bu dee dund ba nëgë ni yow Nabou Ndiéguène yàlla may la teraanga nga sol sa dàll ñëw jox ko waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall la sa maam defoon ak Cheikh Ibrahima moom nga defaat. sëñ ah Serigne Mbacke Fall. muy yow ngay moom ndax sëriñ Mbàkke Cheikh Ibra boolewu euh, tarixa boolewu leen da bokk dëkk ca kër xaali Amar Fall ca Pire kër xaali Amar Fall gësam maam dëkk fa la maami sëriñ Mbàkke Fall dëkk ngeen bokk dëkk fa kon xaali Amar Fall ngeen bokke soog a ñëw ci tarixa kon tey bu yàlla dogalee nga def li nga def dangaa def la nga war a def xale yi ñoom ñëpp ak marché bi ñu àndandoo kontaan di sa sant di la gërëm te di la ñaanal yàlla mi xam ne moo am teraanga te di ko jox yàlla na yàlla gën a yokk sa teraanga ñoom seeni xel ak seeni xol dal na ci yow ci li nga leen jëfal ndax mënoon nga fee ñëw benn yoon dootoo fi ñawaat mënoon ngaa am enveloppe yónnee ko sa rakk ji boo jëlee enveloppe jox sa rakk ji ni ko dewal bu dikkee di yow waaye da nga ne loolu doyu mën naa demal sama bopp délégation bi koo ko ci joxoon ni ko demal bu di dikkee di yow waaye danga nga ni loolu mu doyu ma naa demal sama bopp ndax ñooña fa ma leen teg li ma ciy doy mooy dem fa kon njegéen yal na yàlla yokk sa teraanga yal na yàlla yokk sa sutura yal na yàlla doole def sa wér waaye nag foo jaar mu demee noonu ndax 1800 la sa maam alaaj amat bara san ci kees ku la uy tudd ci nitu yàlla moo la dalal lépp di rafet lépp di jégg ba suñu joon yàlla tey jii kon boo defee li nga def da ngaa def la nga war a def yàlla ñu am fay mën a fay yàlla na la yàlla fay kontaan nañ suñ xol sedd na ñun nag ku ñu yónni ci yow danga ciy sawar ndax ñun suñu baay amul lu dul sa maam suñu baay gëmul lu dul sa maam sa jàkkee maam ja ca la nu nekk ca la ñuy yëngu ca la kër këri lu nu am sa maama fu nu toll sa maama ñun gëmuñu dara soxlawuñu dara sa maam rek lañ duñu diingat duñu xas kenn duñu weddi kenn la sa maam wax la nu gëm nitu yàlla bu ne cër bu ko yàlla jox na ko ko nangul te du tee nga jàpp la nga jàpp sa maam loolu la santaane kon ñun loolu la nu gëm ku am cër nangul nañ la sa cër waaye sa maam la nu gëm ñun da samaam maam la nu waaw moom la ñu bëgg ci sunu xol te moom la ñu fas ba kaw ñuy dugg biir di ñaan yàlla yal na yàlla yokk teraanga yi sunu xol sedd na sunu xel dal na yal na la yàlla fay gaa yi nag ñoom ñëpp kontaan nañu xam naa ni xeeb nañu li ma wax waaye xam naa ne bu lu ngeen ci doole ngeen dolli ko ci waaye daal mënu noo wax ba wax lu ëpp loolu. di mbokki taalibe yi. ginnaaw bi nu sant yàlla julliwaat ci yonent bi sangi-sang yi Moustapha di sant sang yi sang yi Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul sunu yaakaar yi tey ëllëg di santaat Serigne Touba mi nu may barkeb safar ndax barkeb safar ci la lépp aju ndax nu mur lu nu am ci safar lañ ko amee ndax Serigne Touba 1927 la fi jóge Serigne Fallou woote màggal gi kon bu ñu wootee màggal ga barkeb safar dal ñu surtout maam Alaaji Ahmadou Baro defal leen lii kon jaajëf da caa war néew dama naan ko tarixa doxoo ci tarixa boo demee ci kër soxna may Mbàkke moom Cheikh Mat Bamba dem Rasul néegub sooy ni bu jege na nga ca biir kër ga kon doxul ci tarixa kon nag nit boo dee ànd ak moom te doxul ci tarixa da koy delloo wàll njukkal jooju njukkal li nag mooy lan ndax ñun saxuñu ci lenn lu dul barkib sëriñ bi ñun sëriñ bi rek moo nu gundi leen la la la gundi mooy la la saf waaye nag moom li ko gundi mooy lépp lu baax lépp lu baax da koo gundi ndax bi sëñ Tuubaa jaari ci dëkk bi di wër di wi kàngam mu ñëw mu ni du déet bi sa maam ñëwee dañu waa jàngi ba pare xool sa maam ba pare ni ko tiijaan ngay doon tey tiijaan ngay doon boo dékkee alaaji ahmadou ni ko tiijaan amul fële sëñ Tuubaa seere de ni ko tiijaan amul fële waaye ni ko da nga doon tiijaan fii te da nga doon tiijaan boo dekkee ni ñàndam ñaandam jox ñaari jéegu ni ko koo jullee yarma araamal la sawara ma farma Yacine Daour mi ci mbul Amadou Fall Seer Ndiaye Biram Jëb ma ci ngaay ki déggoon suñ tubaa nag laa wax du koo déggoon Cheikh Ibra daa déggoon suñ tubaa déggim déggoon suñ tubaa nag daawul xool ni suñ tubaay waxee max moom mu musaa nekk si daawul wax ku la ku la euh, jur suñ tubaa ku yar la daan wax waaye nag boo xamee loolu jëlaat loolu lépp delloo ko fa mu ne kon yow yaa jaay jaajëf su la neexoon téye sa pochette sa pochette bi bu la neexoon téye ko du la wàññi dara waaye nga ni la mag ña bëggoon dañ koo wut Cheikh Ibra daawul wax dabe ndab leex dabe ki la dàq togg joxe moo la moo la raw moo tax kër kilifa goo mënti dem balaa ngaa dem da ngaa xéewlu moom nag lii loolu mooy doxal këram ndabe ndab fi mu toll daanaka boo fa boo duggee ci kër ga xiiban booy gën di dool nu la neex ndax lijjanti na ba dan la jox lu baax lijjanti na ba lijjanti na ba dan la teg fu baax lijjanti na ba nit ku baax ku mu xam ci at mën laa jënd dan la booleeg moom. dëgg la loolu moom. as góor boo koy jàpp da koy jàpp nee naa ko yow fi mu toll Cees ñi ngay yóbbu sawara dana bari lool ñi ngay yóbbu sawara dana bari lool ndax lan nii nga mel nii rek nga mel karkaas nag boo ci duggul mënoo xam lu cey saf maccum kaani bokkut ak maccum déem sapaateeg déem ba yoroo ma rek ñëw si saalum as piir nga njaboot sëñ Tuubaa gi nag ma kum ëmpule tey tey Cheikh Moutada moom sëñ sëñ Mamo sëñ Tàkko moom Cheikh Moutada ibnu Cheikh Cheikh Moutada bu ko ma bu ji cëram ak yitteem moo tax sëñ Mountakha laay déplacé ñëw jataay bi tey tey sëñ Mountakha laa fi teew du sëñ tàkk ko ak ñeneen ak ñeneen liggéey boobu nag yéen fi mu toll mooy nabu liñ naan buumuk jaam war na leen ko jaral ndax lan surtout Mame Alaaji bu dugg kër sëñ Bamba te dugg kër sëñ Bamba première safar gu mu assisté ci yéen première safar gu takkuk der jëlug laxasaayam xoolal bernde yi moom xamul lu dul bernde nee naa ko nag moom xam naa ki lay déy war na maa déy nante piir la de xam na fi muy lay laal jee sum toll xam nañ suñ xam na ni gars yi gars yi cool yi bari bari liggéeyal yàlla rek fi may dara. moom ndoxu ci gars yi nii gars yi def jur xuy de day liggéeyal yàlla. billaahi moo mën moo mën ci jir mi moo man ci néew di doole yi moo mën ci ñi ñàkk moo mën ci ñi jaaxle moo man ci ki nga xam ne daa xëy suba ngoon di tuñu tuñu yorul dara boo dee na ba sa xel dal lu mu gàtt gàtt sa aajo dana faju moo tax njigéen yàlla yàlla guddal sa fan safar gi ne yàlla nañ ko teewee ay déwén yu bari ci barkeb Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ndax buñ ko teewee ay déwén yu bari dañ ci sàkkul ngërëmal sama borom ndax ngërëm li moo mooy mooy li mooy li ñu war ci barkeb sëriñ bi waaye ngërëm lu ci am yàlla yàlla nañ ko bokk moom barke Sëñ Tuubaa aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu man de euh, li ñu naan fekke muccul yàllaa ma boole ci lii ndax man Dakar laa jóge ñëw cees doon doxi benn itte ma ne foog ma jaar kër Seynabou te nag bala may xam ne sëtu maam euh, Baron Ndiéguène la dama xamanteeg moom dakaar ci politique bi man mën naa wax tey ci foofu kii li mu wax rek man ma am naa ci seede bu leer a leer leer ci Nabou Ndiéguène mii ndax day ànd ak sama ñoom yaay di politique di politigal Macky Sall macha allahu taala mais staff bi mu nekk moom man mën naa koo seede man muy mag ñi muy xale yi amul ku ko ci yab te it amul koo xamante ne rek defalu la teraanga macha allahu taala. kon tey lii ma fekke tey dama cee kontaan te man lii duma di c'est la première fois lii yàgg na ci moom mi ngi nekk ci jataayu doomu soxna yi ci la bokk macha allah soo demee Tiwaawan boo demee Touba macha allah doomu soxna yi ñëpp ko nawloo ndax li gën a am importance mooy nga nekk ak say nawle nga bokk ak ñoom seen maam yëpp di ay nitu yàlla ñu am fuñ la teg te loolu moom liggéey na ko man xam naa ci dara. boo demee ci waa kër maam alaaji abdou soo demee ci sëriñ abdou al amin man toog naa ak moom ak moom ak sëriñ abdou lañ ko baayale mu wax ci moom kàdd yu rafet ak ñoom maam macha allah mu jël ma yóbbu ma ba Touba kër soxna Ndey Mbàkke macha allah man fu ma dem ak moom dama koy naw te man waa Tiwaawan laa waaye dakaar laa nekk nekk foofu macha allah yore fa daara mais li muy def ci diine islaam wallahi dëgg la ci moom gis nga berne yii gis nga li muy def yàlla rek tax mu di ko def ndax nag macha allahu ñoom dañoo nekk euh, li ñu naan al waladu sirru abihi ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamalu mu wax ida maatal abdu in qataa amalahu ila min salaasin sadaqatin jaariyatin aw ilmin yuntafau bihi aw waladin salihin yaduhu lahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu jaam bi deewee jëfam yëpp day dagg ba mu des ñett doom yu baax yii di def ay safar ak ñii di def ay bernde ak ñi nga xamante ne ñi ngi liggéeyal yàlla ci diine ñu di la ñaanal yàlla di ko def mu di la fekk fa mu tëdd kooku la ñu war a sàkku ci kaw suuf muy ñii macha allahu taala beneen bi muy xam-xam bi nga xamante ne dañ koy jariñoo di ko jàngal nit ñi xasida mu di la fa fekk ak lii ngeen di def nii tànt yi teen yi ñuy gas garab yi ñuy saxal ñu mel ni ay ndabu njëgën dem fekk néew di doole yi ñu di leen dimbali ci seeni alal loolu la nit di fekk maam Ahmad baroo Njëgën billaahi tey lii yëg na ko. parce que def na ko ci safar te def na ko ci jaamu yàlla ci ndakaaru ga ñu nekk ñun ci lu ñu xam ak lu ñu gis ànd ceeg moom di ko dund ak moom macha allah yal na la yàlla la fal yàlla na nga dese barke mam Ahmed Baro Ndiéguène li ngay ut ci staff bi ak ci euh, président de la république di ko ut ci sa kër maam yal na la ko yàlla may sa barke maam ku baax nga jër a ngeen jëf jéggal leen ma fekke muccul moo tax ma waxe nii barakallahu fiikum kulla aamin wa antum bi xayri jërëjëf bisimilah rahmaani rahim yàlla nañu commencé ci bisimilah rahmaani rahim eggale ci alhamdulilah rabil aala mbeng Ayda Mbeng laa tudd Ayda Mbeng Baay Faal dëkk Kër Cheikh Ibra ne fii ci marché ngelaw ne fii ci marché xeewal Baay Faal yi nag nee nañu marché xeewal marché maam Cheikh Ibrahima Fall xeewal waaw laaw la cat. na bu Ndiéguène ñëw fi di nuyoo ma nekk nitug marché waaye tey may ndawul na Seynabou Ndiéguène ndax nag saapateeg Demba Yoro ku la may bët nga xool fa ko neex mu ñëw ci marché bi jokkoog waa marché bi laxasu ànd ak waa marché bi bis bi mu njëkkee ñëw ci marché bi xool marché bi ñeewante ko dem del si ñëw def fi doolee mag la mu man robine yaa ngi xelli fépp la tasaaroo laaw la cet yàlla na li nga yéene lépp egg mu dégg ñu ni dañuy safar mu takk ndiggam ni leen laxasu naa ci bis bi sama kol nii ma ko takkoo ànd na ma ak yéen safar ji la nga ñu waxoon dañul laaw la cat yaanu ñemeloo dikk fi nag yónnee ni li ma leen di yónni di leen ko wax su ngeen demee ca marché ba nee leen tànki politique taxul dox doxu politique taxul damay doomi soxna dëkk ci dëkk bi bokk ak Serigne Touba la ma bokk ak Serigne Touba bokk ak Cheikh Ibra la ma bokk ak moom. di doomi soxna dëkk ak yéen ngeen di safar sëñ Touba day sant yàlla ci bis bi nañu ma ko santle ma di ko santle yàlla di ko ànd ak waa marché xéewal di sant yàlla moo tax ma ñëw fi saa yu ma delsee cey ñëw tànki politique suma ma ñëwee damay baas ci digg mbedd mi mitin waaye tey dañuy sant la Serigne Touba bisam bu màgg bi ak weeram bu rëy wi mu moom te bokk ko kenn nag ajaratu sey na bu njegeen ni mi ngi leen di sant waaye cant gi mi ngi koy commencé ci Madoune Thiam ak xale yi nga xam ne dañoo def ab estaf ànd ak Badou mbay seen président marché bi nee na mu leen di nuyu ñoom ñëpp ku lim juum ndax ñoom kat sax bëgguñu sax tudd tur yi ndax tey bisub safar la xale yi ni bu kenn tudd tur lay ñoom a ngi nii taxaw waaye bu ñu tuddee Badou mbay rek tudd nañu marché bépp ñu ànd takku ànd ak moom ci ngor ak fulla ak teraanga mu ñëw nag fekk si leen ci bis bu rëy bii mu def. nee na moom day yaakaar na ni ku satu ci sëriñ Touba dina la fi indi ku satu ci Cheikh Ibra dina la fi indi ndax bis bi da koo ñor sant leen ñu ñu delluy sant waa marché bi ñuy sant Seynabou bu bu baax di sant ñi muy àndal bu baax ndax yàquñu ci dara ab xolam rëy na bëgg na lislaam bëgg na diine ku mu àndal dimbali na la ku mu bokkal rek gar na ci yow ba kanam waaye estafamit macha allah laaw la cat ñu di leen sant nag di leen ñaanal yàlla ñu ne Mayane baay na ñëw moom ndax ajaratu Mayane mii kat yàlla na dem màkk jàmm dafa ñëw séeréel fa marché balu rafet ci sëy na bu ceyit li ñu ni sël mu boroom nga ñëw jël kàddu gi waxal marché bi ndax man tey maa ngi ci ginnaaw soxna sëy na bu njegéen bu ma paree ubbi sama place. sëriñ bi nee na salaamaaleykum wa rahmatulah. nee na ñi ngi nuyu mbooloo bu baax a baax a baax. nee na te di leen siyaar. di leen ñaanal. te di leen ñaanal. di leen ndokkeel ci bis bi. te di leen ndokkeel ci bis bi. mooy bisu safar gi. di bisu safar gi. di ñaan yàlla sunu borom. nee na di ñaan yàlla sunu borom. ci barkeb alxuraan. ci barkeb alxuraan. ci barkeb borom bis bi muy Serigne Touba. ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. ci barkeb maam moom mi tamit. ci barkeb maam Alaaji Ahmadou Baro. ak suñu barke maam sëñ Babacar Lo. ak suñu barke maam sëriñ Babacar Lo. di ñaan bis bii. nee di ñaan bis bi nii ñu ko taxawale nee na nii ñu ko taxawalee. mu kawe seen jot. nee na mu kawe seen jot. ñu am ci lu kawe seen jot. nee na ñu am ci lu kawe seen jot. ñu taxawal ko at yu bëree bëri. nee ñu teewe ko at yu bari te bis bu ñëw rek. nee na bis bu ñëw. faw xa bis bi bi ñu romb faw xa bis ba ñu romboon. mooy gën a yëkkatigu. mooy gën a yëkkatigu. bu baax a baax. bu baax a baax. te am nañ si yaakaar. nee na tey it am nañ ci yaakaar. te rafet nañ ci njott bu baax a baax. tey rafet nañ ci njott bu baax. marché bi nag. nee na marché bi. yàlla moo ma ko séddee. yàlla moo ko seddee marché bi. yoroon naa fi cantine. nee na yoroon na ci cantine. ci marché bi. ci biir marché bi. di jaay comme ñii ni ñu fi jaayee. nee na di jaay kon ñii ni ñuy jaayee. loolu yàgg na fi. nee na loolu yàgg na fi. amul ku fi am boutique. amul ku fi am boutique. koo xam ne xaw ma muy marché boo xam ni. muy marché boo xam ni. yàlla def na fi jàmm. yàlla def na fi jàmm. dañuy wax marché ngelaw. dañuy wax marché ngelaw. waaye du marché ngelaw de. waaye du marché ngelaw de. marché bu dal la. marché bu dal la. ñoom ñëpp ñoo bokk ndey. ñoom ñëpp ñoo bokki ndey. ñoo bokk baay. ñoo bokki baay. li baay Birane Seck di wax. leen li baay Birane Seck di wax. ni ni dëkk bii. ni dëkk bii nu ne. neex naa dundee. neex naa dundee. neex naa deewee. neex naa deewee. mooy mooy booy dund. booy dund. loo xewle ñëpp ànd ak yow. loo xewle ñëpp ànd ak yow. boo faatoo. boo faatoo. ñëpp ñëw. ñëpp ñëw. gunge la. gunge la. ñaanal la. ñaanal la. denk la sa borom. dénk la sa borom de. kon loolu mi ngi ci marché bi tey. nee na kon loolu mi ngi ci marché bi. nuyoo marché bi nag. nee na nuyoo marché bi. maa ngi koy teg. nee mi ngi yëkkati di ko teg. ci loxol délégué de quartier bi. ci loxol délégué de quartier bi délégué marché bi. muy Serigne Bada Mbaye mii. muy Serigne Bada Mbaye. di nuyu nag. di nuyu nag. waajuram wi ko yore woon. waajuram wi ko yore woon. ak mboole seen. ak mboole seen. koo xam ni. koo xam ni. da ngay mag ci marché bi. da ngay mag ci marché bi. nuyu di siyaar. nee na di nuyu di siyaar. suñu wóllare yi nekk ci marché bi yëpp. suñu kóllare yi ne ci marché bépp marché bi moom suñu marché la. nee na marché bi suñu marché la. bis bii may taxawal ñi taxawal sama maam. nee na bis bi ñuy taxawal maamam. sama maam Serigne Babacar Lo. maamam Serigne Babacar Lo. marché bi kenn du des. marché bi kenn du des. ñëppay ñëw. nee na ñëppay ñëw. ñëpp laay giseel. ñëpp lay giseel. dañ ciy jàpp. nee na dañ ciy jàpp. jël seen doole. jël seen doole. jël seen alal. jël seen alal. taxaw ci bis boobu. taxaw ci bis boobu. moo tax bi ñuy taxawal lii moo tax bi ñuy taxawal lii. am na ñu ñëw waxtaan ci ak man. am na ñu def délégation ñëw waxtaan ci ak moom. ma rafetlu ko lool. nee na mu rafetlu ko lool. man leen da ngeen ci réussir de. man leen da ngeen ci réussir de. da ngeen ci am lu lu kawe seen jot da ngeen ci am lu kawe kon yaakaar naa lu mel nii kon yaakaar naa lu mel nii mi fi doog am nee fi doog de te nag ngeen jëmm joo xam ne nee na te ngeen jëmm joo xam ne muy Serigne Touba muy Cheikh Amadou Bamba ku ko liggéeyal ku ko liggéeyal da am fay da nga fayu de da am lu kawe sa njot am lu kawe sa njot ku am fay la ndax ku am fay la ku am fay la ndax am fay la li ngeen fi commencé li ngeen fi commencé marché bi dana yokk marché bi dana yokk ba ngeen yëg ba ngeen yëg ko ñoo ngi ñaan ci barke Serigne barkeb Cheikh Mat Fadal lu fi waaye jaayati lu fi waaye jaayati yàlla na jar yàlla na jar bu fi dara na bu dara dëkk bi yàlla na dëkk bi law ñëw ci marché bi law ñëw ci marché bi marché bi yaakaar naa ne nee na yaakaar na marché bi li ngeen fi bëggoon yéen waa marché bi li ngeen bëggoon yéen waa marché bi soxla yi soxla yi bare woon na lool bare woon na lool yéen a ngi koy jàmbat yéen a koy jàmbat ñu mel na Seynabou nee na ñu mel ni soxna Seynabou mel na nag nee na daa mel ni tey jii nag. tey jii nag. la bunt yi doog a ubbeeku. la la bunt yi doog a ubbeeku. kon lii de. kon lii de. aajo ju la. aajo ju faju la. na gën a santaat yàlla baax a baax na ngeen gën a santaat yàlla. na ngeen gën a baax a baax. na ngeen gën a santaat yàlla baax. ginnaaw jotaay bi dafa xat. kon ginnaaw jotaay bi daa xat. yéen waa marché bi. yéen waa marché bi. yéen sama nit ñi. yéen seen nitam ñi. sama soppe yi na ci marché bi. soppeem yi na ci marché bi. maa ngi leen di dénk. mi ngi leen di dénk soxna Seynabou mii soxna Seynabou mii sama doom baay la kat nee na doomi baay ma na ngeen ko jàppaat nangeen ngeen ko jàppaat na ko jàppale na ko jàppale ku am ngor la ku am ngor la ku am ngor la ku am ngor la ku am kóllëre la ku am kóllëre la ku bëgg dëkk bi la ku bëgg dëkk bi la bëgg fi mu dëkk la ku bëgg fi mu dëkk la Thiès Thiès ak quartier yi fi nekk yëpp ak quartier yi fi nekk yëpp. ndax du du nekkul jëmm joo xam ne. nee na newul jëmm joo xam ne. day tànqam lu lenn. day tànqam lu lenn. lu ko waay yëgal. lu ko waay yëgal. mu ñëw mu teew de. ndaw ndawalu guddi la de. ndawalu guddi la. ku làmb ni ku làmb ni saw sëy na boo waaw saaf sëy na boo de kon nañ leen ko jàppale bu baax a baax kon nañ leen ko jàppale bu baax su ngeen ko jàppalee bu ngeen ko jàppalee bëgg bu ko amee li mu bëgg bu ngeen ko amee seen marché bii day seen marché bi dana leen jàppale dana leen jàppale loolu de li tax ñu koy wax leen lu tax ñu koy wax waxewuñ suñu bakkan de waxewuñ suñu bakkan sëy na boo ngi nii sëy na boo ngi mosuma séq ak moom leen loo xam ne nee na mosa séq ak moom leen loo xam ne daa tax daa tax ma taxaw di wax ma taxaw di wax lii sax baaxuwuma ko ci mbooloo nee na lii baaxuwu ko ci mbooloo mosuñu maa gis ci mbooloo kenn mosu koo gis ci mbooloo taxaw di wax muy taxaw di wax man sax yaakaar naa ni moom yaakaar na ni fee mu dëkk fee mu dëkk bu samay kilifa waxee waaye kilifaam waxee sama kàddu jóg nee na kàddoom wàcc na waaye nag fii nag fii nag day sama cër day cëram samay samay samay waajur fi la ñu nekk ay waajuram fi lañ ne samay mag fi la ñu nekk ay magam fi lañ ne samay rak fi lañ nekk ay rakam fi lañ ne amul lu dul marché bi amul lu dul marché bi amul amul lu dul marché bi amul lu dul marché bi kon nag soxna Seynabou kon nag soxna Seynabou maa ngi lay dénkaat waa marché nee na ñu ngi lay dénkaat waa marché bi na nga leen jàppale na nga leen jàppale foo mën a wuti ku leen jàppale foo mën a wuti ku leen jàppale jàppale nag ñu jàppale jàppale waa marché bi jàppale waa marché bi ñoo ngi koy def ñu ngi koy def. ñoo ngi koy ñaan. ñoo ngi koy ñaan. ci barkeb Serigne Touba. ci barkeb Cheikh Ahmad Bamba. ci barkeb Maam Cheikh Fall. ci barkeb Sidi Ibrahima Cheikh Ibra. ci barkeb Maam El Hadj Malick. ci barkeb Maam El Hadj Malick. ci barkeb sa maam. ci barkeb Maam El Hadj Ahmadou Baro. ñoo ngi ñaan ci barke yëpp. ñeen ñi ñaan ci barkeb ñooña. marché bii ñu ñëw tey teew fi. marché bii ñu teew tey. yàlla na ko su yàlla na ko suñu borom def. waaw yàlla na ko suñu borom def. muy marché marché Daaru Salaam. muy marché Daaru Salaam. marché Daaru Salaam. marché Daaru Salaam. kon nag loolooy ñaan gi. kon loolooy ñaan gi. kon nag soxna Seynabou. kon soxna Seynabou. jotaay bi xat na jataay bi xat na ndaje yu mel ni yu bëri laa war a teew nee na ndaje mel ni yu bëri la war a teew yàlla xam ne ba ma ba tey yàlla xam ne ba ma ba tey lu mel ni lay dox ci lu mel ni lay dox xew-xew yu ñu ay xew-xew yu leen yëgal rek waaye bii nag waaye bii nag bokk ci xew-xew yi nga xam ne dafa bokk ci xew-xew yi nga xam ne day suñu xew-xewu bopp nee na day xew-xewu boppam waaw kon so soxna Seynabu kon soxna Seynab ñu ngi lay dénkuwaat suñu ñu ngi lay dénkaat marché bi ba marché bi yàlla yàlla def financement yu am doole dugg fi ba yàlla def financement yu am doole dugg fi defaraat cantine ñu defaraat cantine yëpp. comme muy marché bu bees. def ko muy marché bu bees. marché bi mar def ko muy marché bi dàq ci Thiès. def ko muy marché bi dàq ci Thiès. loolu ñoo ngi leen koy yëbbante. nee na loolu ñu ngi leen koy yëbbante. ñaan suñu borom. ñu ngi koy ñaan suñu borom. dara jafewu ko. suñu borom dara jafewu ko. luñ ko ñaan may. ndax luñ ko ñaan may ñu. allahumma salli. allahumma salli. ala sayyidina Muhammad wa sallim. ala sayyidina Muhammad wa sallim. jërë ngeen jëf.

nee na bu teewee fii tey ci weer wi nga xamante ni di ñuy màggal weeru safar di njabootam mu yoroon place ci marché bi ba pare journée di doomi soxna dégg soxna Seyni bu ne fi nee kon amatul kaddu nee na magam la sëriñam la nee na nga dellu ñaana laat waa marché bi soxna si nee na nee na nga ñaanalal ko waa marché bi sunu borom yokku leen te barkel leen nee na fu mu xam lu baax de dana jëriñ marché bi dana ko indi ci marché bi ndax moom noonu la noonu la nekkee ci dëkk bi loxoom lantinoor la du teew diw fu mu xool njariñ ni njariñ mën na faa wàcc dana fa dugal njariñ te bu fa dugalee njariñ du fa gestuwaat ngir di fa xool intérêt tey nag mu ñu xamale sëriñ bi moom nee na tey doxu fi ngir ngir ngir jëfi politique tey dafay dox ngir jëmi Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ki nga xamante ni moo demoon kuttumeeg daw me dem sarsaara moom lay sant la yàlla ci bisam bi ndax sëriñ bi moo ne noonu sant la leen ma ci yàlla donte ginaar la ba ci gileem mu ni donte yeeyewu ma ko ma barkeeloo ko te Sëñ Tuubaa lu mu amul waaye nag boo doonee surtout maam Alaaji Ahmadou Baro sa pateek Demba Yoro bàyyi loolu lépp ni tey damay tiit yeesalaat sama njëbbal takku sama der ànd ak ñi nga xamante ni ñooy taalibe Cheikh Ahmad Bamba yi sant leen yàlla sant leen sama maam ju teet ja yàlla ba am ngërëmal yàlla njegeen nag jërëjëf ya ngaa jërëjëf ku def lu baax ñun la jërëjëf merci gàtt na waaye tubaab du ko wax ku defulul dara waaye tey jii sëriñ bi ñu ngi lay seeral ci moom billaahi lazi laa ilaaha illaa man taalibi suñ bis sar jaamu suñ Tuubaa la sama sëriñ ñama booleeg moom waaye lenn ni caaxaan xamuñu ko ci moom mu féete ma nag fa man ndey di féete ndax man yàlla dogal na dama bëgg sama yaay mais mu féete ma fa ma ndey di féete li mu di wax ak man lu mu dul ak kenn foo gëstoo ci tam damaa am a kaay loolu bu la ko nit dee defal da nga ko jërëjëf ay ndaw lan am jom nangoo liggéey di wax lu baax ndax nag wax lu baax moom de comprimé la rek boo ci nekkee doo doo wér doo wér waaye nag ba fexeel ba ña ngay wax lu baax ñu ñu fexe leen a jàpp kii as gor la ku mën lu baax la ku mën di ko def ndax lii bu la neexoon seet foo yoon boo demee tubaa néeg kër néeg ba mam ci biir kër soxna may bintul Xaadim mu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul boo yegsee dañ naan néegub Tijaan bi soxna Baali yamalewu koog dara ak yeneen ak yeneen yoo xam ñu ngi ci yoon di kër Sëriñ Touba kër Cheikh saar Sarr ba fa wàccee muy muy muy buntu këram la kër Cheikh Ibra Fall ba fa wàccee buntu këram la kër Sëñ Tuubaa goo dugg soxna si am na fa wàccuwaay mais nag loolu ku koy def ngir Sëñ Tuubaa tey bu ko neexoon indi fi presse bu ko neex di politique waaye dañuy politique wu ma damay sant leen Sëñ yàlla di ñaan si dara jëy sëriñ bi yàlla na sunu borom guddal sa fan sëriñ bi yàlla yàlla yàggal kóllëre gi yàggal taxawaay bi